yéen ñi xam-xam ñor ak sunu jotaayu xalima bu ñaw di dalal boroom xam-xam fii ci Sunugal 24 point net kon nag tey seen gana ngoog salaamaaleykum mbokk ko comme nañ koy defee saay su ne di ànd ak borom xam-xam yi léegi nga xam ne seen xam-xam teelu na te neex naa dégg tey jii ñu ngi ànd ak Serigne Fallou Niang Serigne Fallou Niang doon borom xam-xam di dimbali askan bi nga xam ne saay su ne ñoo ko yittewoo balaa ñuy sori loolu dañ koy bàyyi mu nuyoog askan bi nga xam ne ñoo ñuy teewlu fii ci Sunugal 24 point net sëñ Fallou Niang bisimilah daan la wax ne gëj nañu la gis tamit loolu. waaw aouzu billahi mina shaytaani rajim bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah. Mm-hmm. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadi wa mawla. Mm-hmm. bismillahi rahmaani rahim wal asri inna al insana la fi qasri illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Mamadou ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ak di ñu déglu ci biir réew mi ak bitim wa rahmatullahi wa barakaatu di la <laughs> waaye nekkoon ci ay it rek ak ah, jamono jog yooyu waaye yow moom ah, yàlla baax na insha allah waaw ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax hmm. hmm. la waaw xam nga Euh, ñun moom yàlla dafa dogal ñu doon ay ndaw yàlla dogal ñu doon ñoo xam ne dañoo gëstu xam-xam nekkuñ ñoo xam ne ñun mosu kenn xamuñu ci lenn ci lañ ñu xam rek mooy xam-xam ndax euh, boo ñu joxoon tey mbuusuk tàngal dañu ko jaayloo dañu ci wëlloo bénéfice duñ ci mën a am benn dërëm ndax xamuñ ko moo tax liñ xam rek mooy alquran liñ xam mooy xam-xami mag ñi euh, liñ xam mooy maanaam xam yi nga xam ne moom na fi mag ñi bàyyi woon léegi loolu li waral ñu xam ko nag mooy dañ ko gëstu ndax baqara ba minal jinnati wan naasi mm-hmm. aaya bu ci nekk borom bi subhanahu wa taala xamal nañu ci secret mm-hmm. te nekkul loo xam ne dañu ko jàngal loolu gannaaw bi ñu gëstoo xam-xam ba noppi ndax ñu xam loolu secret yi noonu mooy suñu borom subhanahu wa taala dañoo wérutur yàlla ba yàlla xamal ñu secret yi baqara mm-hmm. loolu moo waral nag euh, aaya bu nekk ñu mën cee def secret aaya bu nekk ñu mën cee jëlal aaya sàngam boole ko aaya sàngam mu fajal la sàngam nga xam ne loolu boo ko gisee boo ko defee rek da gis lañ la wax loolu mooy waral nit ñu naan ñu borom yi loolu daal ma waral yàlla dogal na ñu bëree bëri ñu leen di dimbale ci wàllu xam-xam ak ci wàllu secret loolu ma waral ñu tudd ñu borom secret incha allah taala. macha allah suñu fan naan hmm. euh, xam-xam bi rafet na mu ngi rafet mu nekk fa mu nekkoon ba léegi hmm. tabarkàlla macha allah ndaxte hmm. saa su ne am na ñi nga xam ne man dañuy jóg ma yëkkati wóoluwuma ci kenn yow mi nga mm-hmm. xam ne yaa ma ci doy mm-hmm. ñoom laa lay boole loolu dama koy rafetlu mm-hmm. te xam naa tamit ñiy seetaan bi xam nañ bu baax li may wax suñ wàllu ñaan buñ jógee ci ponk boobu dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy maanaam wàllum seet ak listixaar yàlla may la ci ñu gis nga ciy def ay preuve di ko xam fii ak bitim réew tamit nga ciy loo xam ne eh, da nga ciy def nit ñi di ko ñu koy rafetlu tamit tey loolu tamit bëgg naa nga leeral askan bi nga xam ne tamit ñoom soxla nañ ko waaw sëñ Mamadou euh, yaa ngi dugg ci lu am solo loo xam ne ñun yàlla dogal na xam nañu ci fii ci réew mi xam nañu tamit ci bitim réew muy ci wàllu seet waaye seet nag euh, dafa bëri ay ay ay ay ay wax yu ci bari mooy seet dafa am listixaar am fanaano am ñu bari nag ñett yooyu dafa doon loo xam ne dañ koy jaxasoo te bokkul seet bu bi ma lay njëkk leeral mooy listixaar al istixaaratu baat bi mi ngi mi ngi tekki tànnloo mooy tànnloo yàlla loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngale am num ñu ko jàngalee ñu war koy defee noonu bu ko defee loolu li nga ci mën a xool mooy benn mbir nga ci mën a xool waaye mënoo cee xool ay mbir yu bëri mënoo ki di nit ki wala nga naan ko lii ak ak lii moo nekk ci loolu listixaar mënu ko listixaar li man mooy tànnaloo yàlla mooy ci misaal nga bëgg a takk soxna ngay xool ba xam sa diggante ak soxna si baax na wala baaxut loolu dangay tànn yoo daal ngay tànnaloo yàlla mooy da ngay julli ñaari ràkka am na ñaan gooy jàng ci biir ñaan gi nag ci ngay tudd turu soxna si nga bëgg a takk nga ne suñu borom bu fekkee soxna si gën na ci man maa ngi ñaan nga jàpp daal sama diggante ak moom su fekkee gënul ci man tamit maa ngi ñaan nga teexale ñu kooku boo xëyee bu fekkee dañ la doon laaj dafa xawoon jafe ci fekkee baax na ci yow lañ la doon laaj bu jafewoon ci yow dana yomb su fekkee nag baaxul ci yow lañ la doon laaj bu jafewoon ci yow day gën a jafe waaye ala kulli al kooku moom du nekk sa soxna loolu mooy al istixaaratu foofu mais ci foofu noonu ponk boobu dañ koy aw a am tuuti. Mm-hmm. maanaam jiixi jaaxa. Mm-hmm. ndaxte léeg-léeg nga dem ci nit mm-hmm. euh, maanaam ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllum ñaan. nga dem ci nit mu ne la ah, li ngay dugg nii da baaxul nga demaat ci keneen mu ne la ah yow li ngay dugg baax na nga demaat ci keneen mu ne la ah li ngay dugg kat li baaxul hmm. euh, hmm. bëggoon naa nga leeral ko loolu li ko waral mooy hmm. dañuy jaawale mooy li ma la wax léegi dañuy jaawale fanaanoo ak listixaar listixaar lii ma la wax nii lay def mooy nit ki dañu ko def ci daamar bu bu ma nee la daamar nag fas day dugg nag dugg xar dugg oto dugg kër sax day dugg daamar ba ñu la ko xam mooy lépp loo xam ne luy luy luy nit ki di wut la rek wala mu mën koo jënd rek di ko jaayante rek loolu daamar la su ko defee léegi lii tax nit ki di la wax dara ne la nga ñëw mu ne la lii baax na wala lii baaxut ñu bëri dañu dañuy juum foofu ci sëriñ su bëri dañuy juum ci wàllu listixaar listixaar bu ñu ko waxee rek waaw waaw listixaar waaw listixaar mooy li ma la wax léegi listixaar yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngale mm-hmm. dafa am nag lu mu lu ñu naan fanaanoo dafa am lu mu wutal lu ñu naan fanaanoo fanaanoo mag ñi ay xam-xam la yoo xam ne mag ñi ñoo ko fi bàyyi waaye dafa am ñaari xeeti fanaanoo yi am na fanaanoo goo xam ne sulmaan yu la mooy yëfi jinn la am fanaanoo goo xam ne nooraan yu la mooy ci alxuraan lay nekk wa indahu mafatixul xaybi laa yaalamuha illa hu aaya boobu rek foofu la yem illa hu la yem aaya bi du jeex foofu la yem soo ko jëlee nga ubbi xëyin googu noonu am na loo fay dugal ak turu ki nga xam ne day day day fanaan moom ngay fanaanoo nga def ko ab téere téere boobu nga def ko sa njegenaay boo ko defee fi ngay tëdd laab fi ngay toog fi ngay toog di wét laab nga sol yére yu laab nga jël téere bi def ko ci sa ci sa njegenaay nga aaya boobu noonu am na adat boo koy wérd soo ko wérd mën a boo tëddee ba guddi day am lu ñëw di wax ak yow loo xam ne rawaxaan lay doon mu am beneen secret boo xam ne bu dee sulmari muy kas fa yaayilu am na noo koy liggéeyee dugal turu ki nga xam ne moom ngay moom ngay fanaanoo ak ay aajoom ak du jar sax ngay dugal aajoom ndax aajo ji moom yow yaa koy xam moom da loo aajoom turam ngay jël dugal ko foofu noonu bu ko defee def ko ci sa njeganaay wér de euh, am na turu turu noonu boo ko wér de ba noppi nga def ñaan gi nga xam ne moom nga def nga dugal tur aajo ak ay aajoom boo tëddee ba guddi day jinde mooy ñëw di wax ak yow bu ko defee loolu nag sëriñ su bari loolu la ñuy def tuddee ko listixaar waaye loolu da listixaar listixaar moom mooy li ma la njëkk wax li ma la njëkk wax rek mooy listixaar lii nag moom gars yi ñoo ko tuddee listixaar waaye du listixaar loolu fanaanoon la tudd loolu mooy fanaanu ak listixaar su ko defee ma ñëwal nag ci wàllu seet seet mooy nit ki nga xam ne day nekk bitim réew wala mu nekk Sénégal mën nga ko seetal te du ngeen gisante mooy mu jël téléphone am wala jox la turam ak turu yaayam ak ñaata at la am nga ne ko woowaat ma fii ak fanweeri minute mu woowaat ma nga wax mu woowaat la nga wax ko li nekk ci moom lépp loolu mooy seet seet amut fanaan amut fanaan amut ba suba amut ba gannaaw suba seet jooni jooni la nit ki da woo téléphone dama bëgg seetlu nga ne ko seet gi jox ma sa tur ak sa tur ak ñaata at nga am mu jox la ko léeg sax du jar ñaata at la am na la jox turam ak tur yaayam rek su ko defee nag ci nga seetal ko ci sensé fanweeri nit mu wàll nga wax ko ay aajoom yëpp ak lan mooy gàllankooram ak lan mooy jafe-jafeem man yàlla dogal na dimbale naa ci ñu bëri ñoo xam ne dañ leen a liggéeyoon dañ leen a ay gàllankoor ñii dañoo tawat lu mën a doon seet gu ko dafa génn waaw <laughs> waaw de waaw sama secret mooy macha allah dama ciy <laughs> ma lay boole ñu li ma ci li ma gën a gis tamit mooy euh, maanaam doo seet kase xam-xam rek. Hmm. mooy li may def yàlla dogal ma xam ko mu nekk xam boo xam ne xam bu am solo la muy ilmu ramli seet dafa bëri am. Hmm. am na ñoo xam ne ci ci ci suuf la ñuy seetee. Hmm. mooy ramli boobu mën nañ ko def ci suuf mën nañ ko def ci kayit. am na ñoo xam ne ci ndox la ñuy seetee. am na ñoo xam ne ci pettaaw la ñuy seetee am na ñoo xam ne ci béjjën la ñuy seetee am na ñoo xam ne ci loxo la ñuy seetee yooyu yëpp ay xeet la yoo xam ne benn bu ci nekk bu ko euh, jotaay bi laajoon mën naa la ko faram-fàcceel ndax bu ci nekk gëstu na ko ba xam ko waaye man bi nga xam ne yàlla dogal na koy seetee ba tax nit ñi fu nañu ma fi woowee ci adduna bi di ma seetloo euh, ba mujj am fu ñu ma jëfandikoo mooy wa taala mi ngi ko wàcce woon ci yonent yàlla Idrissa bi mu ko wàccee ci yonent yàlla Idrissa dafa yebal sayyidina jibril alayhi salaam mu ñëw ci moom ngir bi Idrissa amee ay jafe-jafe mu yebal sayyidina jibril alayhi salaam mu ñëw ci moom ngir jàng ko dafa ñëwaat doon waxambaane ne damaa bëgg nga wax ma fu jibril nekk bi sayidna yónni yàlla idrisa tompee ne ko jibril de gisuma ko ci asamaani juróom-ñaar gisuma ko ci suufi juróom-ñaar yow miy toog buur jibril jaaxal na ma <laughs> ci la jibril xamee ne am na xam-xam xam-xam nag yàlla dogal na mu ngi dox ba jamono ji ñu di ko jëfandikoo dafa am yu bëri yum làmba yoo xam ne xëy na leeral ko ci ay mbir dootul mën a nekk waaye daal yàlla dogal na ñun moom la ñuy jëfandikoo yàlla dogal tamit ñu ngi ciy dimbale nit ñi li tax daal nit sant ak di ñuy yéem ci wàllu wàllu wàllu wàllu seet daal loolu rek moo ko waral loolu nag lu lu yéeme lañ ci def di ci dimbali ay nit bëri na ku am gàllankoor koo xam ne day jàpp ne dañ ko liggéey mu dem fu bëri ñu ne ko dañu laa liggéey ñun bu ñëwee dañ naan ko nangama la dal duñ ca yam dañ koy wax sarax yi muy génne dañ lay seetal ba wax la sarax yi ngay génne la na nga a defee la ko defalee da nga yëg ne yow la nga doon saafarawu bëri na ñoo xam ne fi mu toll nii bitim réew la ñu nekk mosuñ ñoo sangoo ci suñu saafara te ci seet googu lañu jaar ba jàppale leen ndax ci wàllu sarax lañ leen di jaarale foofu nag dafa am yeneen sew saw xam ne ci xam xam-xam boo la nga xam ne nit ki buñ buñ la seetee loolu wax la sarax ba pare am nañ mën nañ laa seetal ne la sarax bii mooy sa sarax dee ko faral def boo ko defee da ngay am jàmm lii ak lii mooy sa jafe-jafe lii ak lii mooy sa gàllankoor bul doog mukk am na koo xam ne day jàpp ne dañu ko liggéey fekk liggéeyuñ ko am koo xam ne day jàpp ne rab ko jàpp fekk rab jàpp ko am koo xam ne day jàpp ne cat ko jàpp ko ndax ñett yu dañoo nekk ñett yoo xam ne dañoo nuróotu bokkut ba ker yi doon benn ci kàttanu yàlla ak mbaaxam moom euh, loolu daal moo tax nit ñi di ñu di ñu di ñu yéem ci wàllu wàllu wàllu seet incha allah. macha allah Serigne Fallou Niane doon doomu soxna mbokk yi moom ngeen doon déglu nii ñu jox leen numéro yi rek maanaam mooy affiché noonu ci suufu baaru écran bi muy 77 812 98 91 ma bamtuwaat ko mooy 77 812 98 91. Serigne Fallou Niane mënuñu fee ñëw ba jóge fi dañu wax maanaam ci li nga xam ne mooy wàllu kàttan. Mm-hmm. yàlla tam may la ci loolu ci côté boobu. ndax <laughs> loolu loolu moom <laughs> lu ngeen ñu gëj a gis gëj a gis maanaam xëy na mën nañu wax ne sax daanaka yittee nit ñi rek fu ñu nekk rek yittee nit ñi moo ñu fa bàyyi mm-hmm. ndax ñun yàlla dogal na wax dëgg yàlla ci biir réew mi bitim réew ñëpp xam nañu mm-hmm. waaye xam-xam boobu moom yàlla dogal na li ma leen wax jamono ci nekk rek mm-hmm. nekkut xam-xam boo xam ne xam-xam bu ñu làmbatoo la xam-xam bu ñu gëstu ba mu ba mu wér la ñu xam ko bu baax a baax eh, yàlla dogal na tamit du luñ defar di jaay déedéet loolu du luñ defar di jaay xam la boo xam ne nit ki bu ñëwee dañuy jox turam ak tur yaayam bu ñu xoolee danañ xool ba xam mën nañ ko ko defaral wala mënuñ ko ko defaral incha allahu taala bu fekkee mën nañ ko ko defaral ñu ko ko defaralee su ko jëfandikoo suñu borom dana dogal maanaam bépp feebar bu nekkoon ci moom boo xam ne mooy waral mu néew kattan day dañ ndax loolu day dindi wàlle wàllu rab day dindi maanaam wàllu takk xala lépp loo xam ne day waral nit néew kattan rek incha allah taala loolu da koy wax nañ ne képp ku ko jëfandikoo mën nga jaxasoo fukki jigéen ci génn guddi te kenn ku nekk da nga ko jox su ma ko waxee dana yéem ñu bëree bëri waaye xam-xam la boo xam ne xam-xam yi mag ñi la ñu gëstu ko xam ko nga xam ne biir réew mi bitim réew ñëpp xam nañu ci ñi ciy dimbali ay nit ñoo xam ne toog nañu ay nangami at mënuñoo sëy yàlla dogal ñu déglu ñu wala yàlla dogal ñu jokkale ñu ak ñoom euh, suñ borom dogal ñu sant bu baax a baax insha allah yàlla dogal daal loolu nag li koy waral dafa bëri xëy na maanaam euh, jotaay bi day xaw a xat waaye maanaam nit ki faral di fooyee boppam wala nit ki nga xam ne day faral di jaxasoo lu bëree bëri wala nit ki nga xam ne bi dañ koo takk xala wala nit ki nga xam ne tamit liggéey bu yàgg tamit da koy def ci doomu aadama yi waral daal maanaam euh, rab tamit da koy def yi nga xam ne day waral nit ki di néew kàttan dafa bëri waaye insha allah taala lu mu ci mën di doon rek bu jokkoog ñun bu fekkee yàlla dogal na ñu mën ko ko defaral euh, suñ ko ko defaralee ci kàttanu yàlla mbaaxam yooyu yëpp lu ko waral rek danañ ko wax danañ ko wax li ko waral ba noppi tamit ci kàttanu yàlla mbaaxam insha allah taala ñu dundee ko ko te laneen lay waxati waaye mën naa dem ba am téeméeraat waaye gis nañu tamit maanaam alxuraan da ko da nga ko maîtriser ñeme ko. Mhm. maanaam sa lépp maanaam ñëw da nga sama lépp alxuraan mhm. te bañ la xamee ba léegi ci loolu ngay dox. Mhm. te ñu ñi ñi nga xam ne tamit ñoo fi teew fii ci kër gi tamit mhm. gannaaw loolu tamit ndax ndaxte ñun balaa ñuy dem ci nit tamit dañ koy gëstu mhm. même doonte sax gëj nañ ko gis mhm. waaye tamit euh, dañ koy gëstu xam ci yan mbir la nekk bu ko defee ñu taataanaat kàdduwam mun a xam lu ñuy jox askan bi lan la ci kaw loolu tamit dinaa ñëw ci beneen ponk dañ koy boole rek ndaxte dóorkat yi dañoo bari ci jamono ji waaw ñu ci bëri dañuy dóor maanaam ci wàllum néew kàttan ñu calmant lañ ciy joxee maanaam da ngay mën léegi mën a waaw waa ñun nag yàlla dogal na li ñuy joxe du ay calmant calmant mooy loo xam ne da nga koy def maanaam boo ko defee loolu boo boo ko naree def jëndu nga jox benn sëriñ si xaalis demal nga jënd ci garabi tubaab yi boo ko defee man boo bàyyee bañ a man ñun yàlla dogal na li ñu def liñ li ñu lay jox du ay ay sunguf suñu lay jox alquranul karim la ak ay turu yàlla ak ay ren yoo xam ne dañ la ko jox nga def ko ni ni nga ko war a defee suñu la ko joxee bo gisee da nga xam liggéey bi liggéey bu wér la soo ko jëfandikoo nag da ngay gën a sant waaye boo ko avant nga laataa nga koy jëfandikoo sax boo ko xoolee rek da xam ne lii moom liggéey bu wér la waaw waaye boo ko jëfandikoo nag moom ci ngay ci ngay xam ne gën naa wérati léegi nag euh, bu dee ci wàllu maanaam euh, li nga wax noonu ci wàllu alxuraan comme niñ ko niñ ko maîtriser ñu yàlla dafa dogal ay doomi soxna lañ yàlla dogal na Touba lañ dëkk yàlla dogal na alxuraan euh, bëri na tey ay kilifa yoo xam ne ci dëkk bi seeni doom moo ko alxuraan yàlla dogal na sama loxol ko yàlla jaarale waaw yàlla dogal na tamit maanaam ñun dañoo jàng ba mokkal alquran bind ñaari kaamil jox suñu sëriñ yàlla dogal tamit baqara baa siin baa ga ca baa ga ca baa ga ca bismillahi rahmaani rahim ba ca siin nga war naa si aaya bu ci nekk mën lañ laa wax la muy jariñ mën lañ laa wax la muy jariñ mën nañ mën nañ cee def mën nañ cee dindi ndax alquran dane maa farat naa fil kitaabi min sey in sëriñ Tuubaa ne kitaabu xayri wara aslul xulóomi ma xam huwal kitaabu am fu alquran wax ne wa nunasilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin sëriñ Tuubaa ne huwa shifa min kulli daa liman alayhi tamada wa man abaahu turida daa xasratin wadad bi alquran mooy saafara bépp jàngoro ndax ñun yàlla dogal na gëstu nañ xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xam yu ñuul yi waaye biñ gëstoo xam-xam yu ñuul yi gëstu fitis gëstu nañ lépp waaye li nga xam ne moo ñu doy mooy alquran ndax ñu bari dañuy wax ne alquran gaawut dafa yeex a gaaw luy gaaw ci fajaajo ki ko xamul nag ko làmbatu mën naa yeex waaye ñun képp koo xam ne fañ na alquran fañ nañ ci jàngoro ju nekk jàngaro joo gis mu mu jafe faj nit dem na hôpital ñu ne ko mënuñ laa faj gisuñ dara ci yow li ma la wax rek képp koo xam ne da nga am jàngoro joo xam ne euh, da nga lu mu doon yaakaar ne maanaam laneen la wala dara bu yàlla dogalee ko xoolee benn lii la insha allahu la ci taxawu te duñ ci alquran te insha allahu taala dana saafaraw insha allah ndax alquran moom fañ nañ ci jàngoro ji nekk insha allahu am solo mooy waral alquran daal li tax ñu jàng ko mooy ñun dañoo doon ay doomi soxna jàng alquran bu mokkal ko bind ñaari kaamil jàng xam-xamu diine yi nga xam ne moom lañ war a jàng yépp ci kàttanu yàlla mbaax na ñu toog yoroon daara di jàngale yàlla dogal la ñu yàlla nattoo ñu jël daara la wax léegi boo ñu joxoon mbuusu tàngal dañu ko jaayloo dañu ci wuloo bénéfice benn dërëm dañu ko ci xam ndax xamuñ ko kenn mësu ñoo kenn mësu ñoo xam ci leen lu dul jàngal jàngale ak ñaan yàlla ñun daal ci loolu lañ nekk yàlla dogal tamit loolu lañ xam na moom amul benn ay wax dañ ko ci soxla di ko yëri cib kaamil lépp yàlla dogal na mi ngi suñu bopp bi incha allah taala. lu waral sëriñ Fallou Niang yéewoon ci xam loolu li ko waral xam moom. Mhm. Euh, nit ki. Mhm. ki ki iñaan ci mhm. bokk na ci mandargay mandargay texee di iñaan ci xam nit ki da cee war a laabiir di ko war a séddoog doomu aadama yi. ndax soo ko séddoowut xam-xam moom li ñuy wax rek bu ko nit lekkut suuf lekk ko kon nag nga jox ko nit ñi lekk ko moo gën suuf lekk ko. loolu rek moo waral képp koo xam ne yàlla dogal na ñu mën a laabirante ak yow dañu laabirante ak yow ci alxamoon loolu moo waral daal ñu bëree bëri comme ni nga ko déggee ci gars yi na ñoom dañ ko wax nga dégg ko dañ <laughs> ko déggee ci noonu moo tax ñu naan ñu borom secret yi loolu rek moo ko waral insha allah dañoo xam ne daal xam-xam la boo xam ne jàng nañ ko xam ko euh, yàlla dogal na ñi nga xam ne ay doomi soxna lañ te jàng alquran moo ko alquran tekkuta doon sëriñ sëriñ da ngay jàng xam-xam gannaaw bi nga jàng alquran ba noppi dafa am nekk ci biir alquran yoo xam ne fii jàngu mënoo doon sëriñ nit mën naa jàng alxuraan mën koo tari mu neex lool waaye mënut a faj aajo faj aajo nag dafa am luy tax a da ngay yor kurus doon koo xam ne da nga wérd wérd ba am ijaaba ijaaba dafa am solo ijaaba dana sa tan maal ko bool ijaay sa janation boo amee ijaaba nag euh, yu bëree bëri ci la lay dikkal da nga xam ci ay secret yoo xam ne du lu la nit jàngal am na secret yoo xam ne nit ki lii tax nga mën a toj faj aajoom du looy jàng ci looy looy toog ci kenn mën la koy jàngal loolu suñu borom subhanahu wa taala di di di jàngleel la dafa am loo xam ne faddu la xamali la am loo xam ne fadlu xusuus yi la ñun nag yàlla def ci ñun ba nit ñi duñu yéem loolu borom bi subhanahu wa taala la mu def ko ci ñun insha allah taala ci ay jamono mm-hmm. euh, toogoon nañ fi tamit loo xam ne ci suuf nga ko doon waxee mën mm-hmm. euh, na la lii foog nga wax ko ci kaw maanaam mm-hmm. nga ne ma kilifa kilifa yi rawatina sax ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement ba limal ma ay loolu sañ ma ko woon wax ci ci jamono jooju. Mm. mais tey mu nekk actualité. Mm. nga waxoon ma ko démb. Mm. tey ñëw. waaw loolu euh, li ko waral mooy. àdduna ñun duñ gëstu ay mbiri nit. Mm-hmm. koo xam ne séqu ñu moom jëflante. Mm-hmm. waaye borom bi subhanahu wa li ma lay waxoon rek. Mm-hmm. borom bi subhanahu wa dafa am ay jëmm yoo xam ne. du buñ ne day wax ak ñun loolu day rëy. waaye mën nañu wax ne yàlla am na lu ñuy wan. nit ki nag du lu yàlla woon rek nga wax ko ci kaw waaye mu bekkee da nga bokk ci réew yàlla dogal du ñëppee gis yàlla dogal nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy gis su fekkee da nga gis dara dana jar nga leeral ko moo tax jamono man ne leen woon dana bari ay kilifa yoo xam ne danañ làq loolu li ko waral nag laa leen wax mooy dafa bëri ay xeeti xam-xam yu ñu jëfandikoo ci réew mi mooy lu jëm ci wàllu fitis ak wàllu njabar goo xam ne mooy waral yu bëree bari di am su ko defee nag ñoom dafa am ay yëf yu jëfandikoo yoo xam ne day soxla deret dafa am ay deret yu mu soxla tamit nekkul ne deret yëpp lay soxla waaye dafa am ay deret yu mu soxla bu ko defee ñoom jinne yi nga xam ne ñoom lañ jël sànni ci dëkk bi ak tamit bëri li am mooy bëri na ay dëkk yoo xam ne dañ koo toj di am yu ñu fay tabax jinne yi nekkoon foofu dañuy jóg jaxasoog nit ñi bu ko defee nag képp koo xam ne koo mën a boo amul kaaraange amoo fegu gu wér rek ngir nga yàqula da yomb moo tax ma ne kilifa yu bëree bëri comme ni ma la waxee noonu yàlla dogal na noonu la demee loolu rek mooy mooy sabab bi bu ko defee ku yàlla dimbale nag nga xam sa bopp jóg taxaw ci say mbir euh, bu adduna bépp doon jaxasoo tamit bay rëng-rëng yi yow moom da nga da nga kii li ko waral rek mooy euh, li tax sax yëf yi xam mënoon naa gën a metti waaye suñu borom def ci jàmm mooy li suñu borom wax rek wa ma kaana allahu li yuhasibahum li suñu borom wax yonent yàlla Muhammad a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim wa ma kaana allahu li yuhasibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu muhasibahum hum yastaghfiruun suñu borom nee na du ma mbugal saw xeet li feeg yaa ngi ci seen biir laaj ko ne ko bu ma nekkul ci seen biir nag mu ne wa ma kaana allahu mu'aatibahum wa hum yastaghfiruun li fee ñu ngi def listixfaar Sénégal nag kenn ku nekk xam na listixfaar moom du fi jóg ndax bu dul dara sëriñ si nga xam ne dañuy yor seen kuréel di def qur'aan la halaka naasu kulluhum ak xale yi nga xam ne dañuy jàng alquran ci réew mi loolu bokk na ci nga xam ne dimbali ndax moo tax nañ gën a fonk xale yi jàng alquran li may dénk nit ñi képp kilifa goo xam ne mënoo dem ci sëriñ mu lay ñaanal deel jël sa alal di ko yóbbu ci daara alquran ajjuma bu jot wala bis bu jot yaa xam ban bis ngay sàkku bu jotee nga defar ay ñam yóbbul leen te sàkku ci ñoom ñaan ñaan ndax loola dana la jariñ ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatu suñ borom ba amoon njaboot ki nga xam ne mooy njabootam tey mooy ahlul quran kon nañ fonk daara yi nañ fonk ahlul quran suñ bëggee am jàmm yi tax nag yëf yi xaw a demee nii méttiwul na mu war a métti dëgg-dëggal euh, li ko waral rek mooy yi nga xam ne dañ ko fi def ndax boo xoolee euh, suñ mag ñi maanaam seen wird yi koo ci gis boo demee ci wirdul maxuus am na listixfaar boo demee ci Seydi Alhaaji Malick maanaam euh, wasifa am na listixfaar listixfaar yu ñuy def moo tax mbugalum yàlla wàccu ci suñ kaw waaye jamono ñu nekk rek nañ jàpp ne mbugalum yàlla bu fekkoon nekkul nekkul loolu mbugalum yàlla mën na wàcc suñ kaw léegi nag li waral nag yii di am kilifa yi làqu ak yu mel ak ñu siiw ñi di làqu li ko waral mooy lii ma la wax mooy képp koo xam ne daal sa bopp nooy na amoo kaaraange bay boo nga dem wuti ko te foo dëgër lu ñu waa waaw déedéet waaw daa am daa am daa am loo xam ne daa am daa am loo xam ne nag mbiri baatil la moom mbiri baatil moom baatil moom baatil la tudd uh-huh. su weeroo tudd baatil mm-hmm. dañ ne baatin bëtil la mm-hmm. baatin ak bëtit yam mm-hmm. lu ci génn yàqu baatin bu génnee baatit lay tudd te baatil moom baaxut bëtit tamit bu génnee rek borom doot am jàmm loolu moo daal loolu dañuy tànn denc ko mu doon loo xam ne suñu diggante ak suñu borom subhanahu wa ak ki nga xam ne ñor na ko mu ñëw ci ñun su boobaa danañ tëjoo ak moom wax ci amoon dañuy wax incha allah taala fu ñuy jeexalee rek mooy li ñu tàmbaloon lay may askan bi tey waaw xanaa askan wi moom bu dee ci wàllu kaaraange xam nga nag ñun baaxoowuñ di génn xam-xam la daal mën lañ gën a junj ci benn mbir mooy alquran li muy yaatu yaatu am na diggante boo xam ne mooy kaaraange gi gën a wér mooy wëttini banaas yi wëttini banaas ñaar fukki saar la ci biir ñaar fukki saar yooyu ñaar fukki saar yooyu mag ñi joxe nañ ci ay secret yu wér yoo xam ne képp ku ko jëfandikoo bu asamaan si doon daanu dal ci ko ni yow tamit yàlla dana dana dana fi toll yow ba ba ba doon dal sa ñi wax nañ loolu mu ne ne boo ko doon jëfandikoo bu asamaan doon daanu ci kaw nit ñi tamit suñu borom dana fokk fi toll ak yow ba dal sa kaw kon wëttini banaas yi lu am solo la waaye nag ci biir wëttini banaas bi dafa am ay secret yu ci nekk dafa am juróomi saar yu ci nekk yoo xam ne saar wu nekk juróom-ñeenti miim la am boo ko defee am na tabaaraka baaru tabaaraka aaya aaya bu tàmbalee tabaaraka wala fa tabaaraka wala wa tabaaraka boo ko boolee juróom-ñeent la juróom-ñeent yu nag am na noo koy liggéey boole ko moom euh, soo ko jëfandikoo juróom-ñeent juróom neuf soo ko multiplier cinq fois lu mu lay jox quarante cinq quarante cinq moo jàpp aadama aadama min turaab kullukum min aadama wa aadama aadama ci suuf jógee bu ko defee da nga ko boolee ñeent fukki xeer ak juróom muy 45 xeer xeer fu mu jógee suuf la jógee waxuma nag xeer bi ñu togg xeer bi ñu toggagul laa wax secret boobu képp ku am nga jëfandikoo ko bu adduna bépp doon fàq di dal ci sa kaw duñ la mën a dara loolu nag du luñ mën a leeral dëgg-dëggal waaye daal yàlla dogal na xam-xam la yoo xam ne ñu ngi ciy dimbale jaam ñi képp koo xam ne daal yàlla dogal na nga am jafe boobu Euh, bu fekkee yàlla dogal nga jokko ñoo mën la ñu ko baaxee incha allah taala macha allah foofu la ñuy hmm. jeexalee hmm. sëriñ Fallou Niane di rafetlu xam-xam hmm. bi nga xam ne yàlla may na la ko di wax mbokk yi rek macha allah képp ku ko soxla mu nga ko woo ci numéro bii di affiché ci suufu écran bi tey moom la ñu àndaloon mu doon borom xam-xam yitteem doon lenn lu dul saafara jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan bi di jànkonteel saa su ne kon mbokk yi dañuy dox di dig ak beneen borom xam-xam incha allah jërë ngeen jëf ba beneen yoon hmm. yéen ñi xam-xam ñor ak sunu jotaayu xalima bu ñaw di dalal xam-xam fii ci sunugal 24 point net kon nag tey seen gën a